soxna ummi Mbacke ummi Abdoulahad Bousso Thierno. Mm. waaw ñoo ngi fii ci kër Sëriñ Afia Bousso ci barabu Sëriñ Abdoulahad Bousso Thierno ñu organisation baa ngi nii ñuy teeru gan ñi fas yéene leen teral waaw toppatoo leen ndax ñu tamit amuñu ku dul Sëriñ Afia Bousso ak Sëriñ Abdoulahad Bousso mi ñu yàlla booleel ñoo defar yi yëpp waajale ko gan ñi ngir fas leen teral mu mel ne Mbusoo xar kanam bu yees bu fi amati wala bu fi daan am amaat amati na. Eh, ni ngeen wax mbokk yi hmm, xanaa kontaan rek ndax lii moom dafa neex lool woote say bokk yëpp ñëw teew bëgg nañ ci lool kontaan ci neex na lool tamit nag eh, am nañ mbégte ak contentement xamante ne nii am na fu mu tàmbale waaye amul fu mu yem. bég nañ lool suñu xol sedd na nu Mbusoo bi yëpp tamit nañ ñëw nañ teewal ñu ñu bég lool nag suñu mbokk yëpp ñëw nañ teew. bëgg nañ lool kontaan lool nag. kan <laughs> ah, moom mel na ne man Mbacke laa sonn sëñ bi Bousso xam naa nag fi mu ne yëf yi moom dañ koy far rek <laughs> diggante Mbacke ak Bousso bi daal ah yëf daal moom macha allah rek. bis bi nga xam moom bisu fi nga xam ne fi nga koy fi nga koy defal di ko dundal ci berne yi ak yooyu tey xanaa am mbégte rek bu baax a baax ndax bis bi bis la boo xam ne sëñ bi moo ko sos euh, Cheikh Mamadou Fadal ci coobaree boppam ci atum 1950 daanaka wax ne eh, yabal fii ay nit ne nañ fi fanaanee jàng alxuraan ak xasida def ay bernde jàng alxuraan ak xasida ñaanal koy it eh, moo tax nag saa su ñëwee liñ man rek ci am di jàmm yi fi ñëw yàlla dafa dogal sax ñun yëg léegi sax demeewul noonu waaye nit ñi suñ ko déggee dañoo baax dañu ñëw eh, ngir saafante ak ñun moo tax su waxtu yu jotee luñ man rek ci buñ ñëwee ñu teral leen ngir jëmmi Sëñ Afia jëmmi Sëriñ Tuubaa it mi nga xam ne moo waral ngërëm li lépp moo tax barab bii nga gis nag eh, maa fi nekk ak sama mbokk mi Sëñ Abdou Lahad Muxtaar ñu ngi sant it mbokk yëpp ak eh, ci teraanga yi wax dëgg yàlla leen gërëm bu baax a baax daal di ñaan suñu borom ku fi teew suñu borom faj sa aajo barakatu xaadim rasul jërëjëf barakatu sëñ bi ginnaaw bi ñu ñu ngi lay jaar tey ci bis bi nga xam ne moom mooy màggal bi nga xam ne moom la ñu màggal di ko fàttali ko suñu Afia Bousso est-ce que mën nga dikalaat ci li nga xam ne moom mooy cosaan la dëgg Euh, jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu waa site internet bi di 24actu di nuyu sëñ Thierno bu baax tey ñu ngi fii ci ñaar fukk na juróom-benn ci weeru koor nekk fii ci Bustaanu Arifina ci barabu sëriñ Afiya Buso di màggaluk sëriñ Afiya Buso goo xam ne ni 1958 la jarbaatam Cheikh Amadou Fadal mi nga xam ne waaye juróom soxna aw Buso mook sëriñ ñoo bokk ndey ak baay yëg ne war naa wutal kat sëriñ Afiya bu bis bis mu tànn bis bi indi fi teraanga ju rëy boole ko ay xéewal indi fi jàngkat màggal ko ba ba set mu woo njaboot gi yëpp ne leen bis bii dama ko wutal suñu affaire nga continuer loolu bi 1958 ba léegi la ko kilifa doon def am action woon suñu waajur suñu Cerno ci kaw boo xam ne dimension internationale la ba tax njaboot gi bi suñu Cerno jógee nag yëg ne ndono li ñu am kon dañ ko war a yëkkati mu gën a jëm kaw waaye waruñ koo jàmmat mu jëm suuf ko suñu Fall dajoon ba ñu ngi ci 2024 te ñun ndaw ñi nga xam ne dañoo judd ci ginnaaw bi di ay ndaw di ay sëti siñ foon ak sëti siñ aafi xëy na historique bi ñu war a jaxlante lépp xamuñ ko woon ñu ne bi lañ ko jël ñu delloowaat ko bés bi tudde ko wax dëgg yàlla ñoom it ñu am ci taxawaay bu am solo ñu délégation bu am solo ci ne ni kat yoonu ak tey nan la ko mag doon dund a dund tey ngir ñun ndaw ñu ñu jàngat ci ba yenn rëq-rëq yi ak force yi ñu bëgg a jàpp ne dafa ñoo war a forcer kilifa te waruñoo forcer kilifa ñu roy ci loolu ndax mag kat biñ nekk ak sëñ Tuubaa dañoo dañoo woon seen lépp sëñ Tuubaa kon ñun ndaw ñi bu ñu bëggee jariñ ci yoonu murit tamit dañuy bàyyee lépp kilifa yi tey ca ca doyloo leen ci lépp waxtaan walaay wala walla conférence bu am solo wax daal wax dëgg yàlla mbokk yëpp teew ji mu nekk lu réussir lu spécial tey jii nag ñu ak ba mu jàll ñu doog as ci bis bi tey. Hmm. bis bii mu mel ne bis la boo xam ne ni léegi partout dañ koy màgg rawat na ci fii nga xam ne moo di pencum boppam ni ñu koy waxee moo di daaru mën naan bu bustaanul muhaarifina ni ñu koy waxee tey buntu kër yu nekk wala njaboot gi yëpp ñoom tam di ko fa dundalee rawat na ci weeru koor koor bi bu waxtu ndog bu jotee ñu gis lu spécial loo xam ne nii organisation dañ koy fiy def ci li nga xam moo di penc mi nga xam moo di pencum bustaanul muhaarifina waaw fii ci bustaanul muhaarifina njaboot gi yëpp njaboot suñu affaire gi yëpp macha allah yaakaar naa xam yoonu murid ni mi bi ak ci organisation méthode organisation dañ ci fekk njaboot si ñaafi kon nag dana jaadu ñoom seen bisu maam bu accès méthode d'organisation bi war a demee nii moo tax sëdd yëpp ak njaboot yëpp boo fi dem fi mu toll nii ñëpp organisé wu di ko def ci ay bernde ndax ku ne xam ne ne koor jaxe ci ñam benn tàndarma rek doomu aadama mu dog yi wu ci nekk kenn xamul mu toll waaye fukki fan yu mujj yi nekk mi fukki fan yërmaane bis bi tey it di bis ñu ci am ñu bëree bëri borom xam-xam ñu bëri ci dàq leen xadir tey kon bu yàlla taalibe yi ak njaboot gi ak sët yi ñëpp organisé wu ba weeru koor wi teroo ba léegi amatuñ jàmm ngir lan ngir bëgg réussite màggal gi wax dëgg yàlla macha allah kenn ku nekk li am ci sa doole ak sa wërsëg ak sa xam-xam ak sa xel ak sa doole ci wàllum organisation ñoom ñëpp ñëw nañ ñi jógee Ndakaaru ñëw soxna maam jaara bu suñu ak ñi mu àndal ñëpp ñu ànd ak a xam ne bokk ñëpp soxna Asta Waalo njabootu soxna Asta Walo gi yëpp doon jël àndoon di màggal kër Serigne Afia Bousso ni ko nekk njabootu Serigne Afia Bousso ko defee wax dëgg yàlla tubaarkàlla kawe nañ jot wax dëgg yàlla sant nañ mbokk yëpp nag teewaay bi ñëpp rafet na benn mbokk desut ñëpp ñëw nañ ànd ak ñun ci bis bi ngir fàttali ko Serigne Afia Bousso fàttali ko waale Serigne Thierno te it nag suñu waajur Serigne Thierno ci am euh, jagleel boo xam ne bu particulier la ku ne xam na ne moom moo nekkoon caatu Serigne Afia mu góor waaye moom rek moom la suñ borom jagleel ñu denc ko fii ci wetu ci wetu waajuram Serigne Afia loolu nag di ab rëy ab cër bu rëy boo xam ni bu spécial bu particulier boo xam ne ñun mënuñ ca ñàkk am taxawaay mel noonu yow sëñ Thierno ci kër gi nga bokk xam nga naka jekk màggal gi lu ëpp ay fanweeri an fanweeri at ñoo koy àndoo yi di seen a yokk kon ñu ngi leen di sant boo di ko ak mboolem ay rakkam taxawaay yu am solo ay laytaay gi ay plateau yoo xam gis nañ yooyu waaw kër gi këru xam-xam la moo soo commission scientifique bi ñu gis na Sëñ Afe portrait Sëñ Afe la ñu doon ni ñu def ay plateau yoo dañu def plateau boo xam ne diggante Sëñ Afe ak Sëñ Fall la ay jëflante yu doon jëflante yu rafet ngir ñu doon def plateau boo xam ne diggante Sëñ Afe ak alxuraan la ku ne xam ne ne kër gi këru daara la këru daara la goo xam ne ni foofu dugg daara alxuraan ña fa te kër la goo xam ne këru mbind la mbind dañoo am seen u mbindum bopp boo boo xoolee da nga naan mbindum Baye Sëriñ la wala mbindum Sëriñ Modou Fatick Kane la ba xam ne mooy yëkkati sëñ am na solo ñu laaj ko ne ndax am nañu sañ-sañ di ko yëkkati sëñ bi leen waaw ñu tàmbal di yëkkati sëñ bi di yëkkati sëñ bi ba ni sëñ bi kon def nañ émission boo xam diggante suñu affaire xasida yi def nañ benn émission boo xam ne yan jeexit la kër gi am ku ne xam ne ne kër gi dafa am ay daara yoo xam ni dañu jàng diggante arabe ak français ci 300 ñu am ci entrée sixième ñu encadré leen ci yeneen 300 ñu am ci BFEM encadré yeneen 300 ñu am ci bac ba fi boo demee ci université yi nekk ci Sénégal yëpp njabootu suñu affaire mi fi ci yoonu la jaar ci teew la ba noppi it boo demee ci France ba ci Maroc ba ci yeneen yu bëri ndaw yi fa nekk yëpp ndaw yi nga gisoon ñuy organiser ci bi yëpp def nañ benn majalla boo xam ne tey def nañ ci ay thème actualité politique def ci ay thèmes ko def jigéen lañ ci jigéen ñooñu kenn ci ay sët signaafi lañ yoo xam ne dañeen encadré ñu mokkal xaan ñu yóbbu leen ñu jàng ba ñëpp ñu nañ ko ci traduire ko ci français traduire a te defoon nañ ko tiiree ko yónnu ko ci waaye danañ ko def version électronique dugal ko ci ci ci ci ci site internet yi ak ci YouTube ci Google ba ñëpp mën ko jariñoo sëñ Thierno tim tudd ab bay dafa mel ne kër gi tim comme ni nga ko wax ci daara bay mi tim dañ ciy yëngu bu baax a baax. waaw sëñ Thierno moom ku ko xam-xam ko ci mbay ak jaamu yàlla ak jàpp ñaamuram looloo ko yóbbuwoon Touba boobu sëñ Fallou yóbbuwoon ko fa ba mu fa jógee looloo ko yóbbu Touba bu Sane si ñoom du xaar yóbbu ko ba ci bu Saadou Xaare fii ne gi ñu nekk ci yoon Daaru Rahmaan ay toolam loolu ñu fa daan bay ba ci dënee ji ci yoonu Thiel wi ba demee fukki kilomètre ak Thiel Sëñ Abdou moo ko fa dogaloon boo xam ne juróom-ñaari kilomètre kaar moom it foofu dañ fay bay ba léegi doomam Sëñ Aafi loo xam ne kërug jaamu yàlla ak bay dunde Sëñ Caru nag amoon ci taxawaay bu particulier boo xam ne nii yaakaar naa ci dëkk bi ci commerçant yi gënoon a mag ci ci production agricole ci la ci ay jamonoom ci taxawaay loolu ba léegi njaboot gi ci njàmptool lañ dañoo boole jàng ak bay ak liggéey loolu nag yaakaar naa am réew bu bëggee développé ñi fi nekk ci réew mi rek ñoo ko mën a développé ci wàllu bay ak agriculture kon loolu ci la ñuy soññu njaboot gi yëpp nag di ci soññu taalibe yëpp wootee ñu si ginnaaw bi ñu wootee ba taalu bi yëpp ñëw kàddu yu cant ak ngërëm ak soññee ñu mën cee ni ba déwén incha allah. waaw ñu ngi sant ñëpp daal tàmbalee ko ci suñu kilifa yi sëriñ Afee Buso ak njabootu sëriñ Cerno gu jigéen yëpp di sant taalibe yi kenn amut fen fay ñoom ñëpp ñu nekk ci biir réew ñu nekk ci bitim kenn ku nekk lim man jëf na ko biñ ñëkk ci ñu biir dëkk bi ñetti fan yi yëpp ñu ngi fi di mobiliser wu di organiser di defar lépp lu ñu war defar ba tey ñu àgg fi waaye di sant sët yi nag sët yi ñoom ñëpp seen taxawaay rafet waxee soxna maam Jaara Buso ku ne jot ci administration la nekk waaye bu màggal gi ñëwee day bàyyi def demande de promotion ñetti fan ñëw nekk ci màggal gi ànd ko sët yëpp nag sëñ Thierno Boso moom sëñ Afi ak ñoom sëñ Jili ñoom ñëpp ñu ak am ànd ko tey wax dëgg yàlla ku fi ñëw ci ay xéewal xam nga ne ak nag yokk gu kon nag ñoom ñëpp ñu ngi sant bu baax di leen ñaanal seen barke maam sëñ suñ borom taxaw leen waaye di sant sët yëpp nag ak di sant taalibe yi di sant xarit yi ak wóllëre yi nga xam ne ñëpp teew nañ di ñaan yàlla daal ñu teew ko at yu bëree bëri ca ngërëm li nga xam ne suñu aafi amoon na ko ngërëm loolu yàlla nañu suñ tubaa boole ci biir ngërëm loolu ca kenn ku nekk defal ñu xéewal ak i yoo xam ni balaa ren di déwén kenn ku nekk yëg ak yokk ci yéen yéen site internet bi nga nekkee Waltaadou ak ñi leen sant baax sëñ Thierno ak sëñ Mbaye yàlla def leen yokk leen ba fi ngeen bëgg àgg ci liggéey ngeen àgg fa ba am ay yu waa xam ne nii moom la jërëjëf sëñ Thierno ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu équipe bi nga àndal yëpp di leen dalal jàmm fii ci Bustaanu Arifin pencum Serigne Afia Bousso ci bis bi nga xam ne dañ koy fàttaliku te ndigal lu jóge woon Cheikh Mamadou Fadal bàyyi ko woon ñëwoon ci xalifaam bi ku nekk loon sëñ Modou Fatikani Bousso di ab taawam njëkk ko wut ñu koy fàttaliku fii ci Bustaanu Arifin Daaru Manaan pencum Serigne Afia ñu ngi leen dalal bu baax di dalal mbokk yëpp. ginnaaw bi nga mën a xam ne moom moo di Serigne Afia bu waaw ah, Serigne Afia doomi Serigne Bousso bi la Serigne Bousso bi ku nekk xam na ko mook waajuru sa Ahmadou Bamba soxna Jaaratullaahi Bousso ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay moom moo magoon soxna jaar kon waajuram muy Serigne Bousso bi nijaay sëñ bu mag bi. te sëñ Bousso bi tamit ku nekk xamoon na ak walaayam mu nekkoon nituk yàlla nekkoon xut bu samaan jaayantoon ak borom ba ba képp ku mu am ku ne wàlliw lay doon kooku mu kon mooy sëriñ bu bi mu ginaaw nag bi sëñ Afe feeñee ci ay loxoom moo ko jël jébbal ko Cheikh Amadou Bamba nga xam ne mën nga ñoo xam ne doomi nijaayam la waaye tamit nekkoon ab sëriñam eh, Cheikh moo ko yar tarbiye ko jàngal ko ba wàcce ko mu bokk ci murid yi nga xam ne ñoo njëkk ànd ak sëriñ bi bi ñu sanc Touba ci sëriñ bi di ko tan sanc 1888 bokkoon na ñi nga xam ne ñoo ko garoon juróom-ñaari at yi nga xam ne fi dafa sëñ bi def bokkoon na ñi xam ne ci bi tarbiyewu ñu daan ànd ak moom li tarbiyewu gu njëkk naa bi fi sëñ bi jógee tamit euh, dem ci géej gi boole koog maam Thierno mu nekk ak moom ba ni sëñ bi ñibbisee ci noonu la continuer rek ba fii mu nekk nii sax ndigal la ci sëriñ beek fu joxoon muy door mënaan gi mu fi daan nekk bi sëñ bi nekk njaareem daan téye ak njabootam di bind ay kaamil di leen yóbbul nekk fi daan jaamu yàlla di jàng ak jàngale ba yàlla dogal mu moom ko ñu denc ko fi tey jii nag ñu ko fi fàttali ko kon kooku mooy Serigne Afia bu so nekkoon nituk yàlla ko góor yàlla ko mag a mag waliyullaahi bokkoon ci njabootu Serigne bu soobee waaye tamit bokkoon ci mag yi ñi nga xam ne ñoo njëkk a topp Serigne Touba waaw comme niñ ko baaxoo def rek chaque année xam nga lu ñaan looy def lu ne bu yàggee da nga ciy gën a am expérience xam naa moo ñu daal ñu dal ci bis bi. ginnaaw biñ ko tàmbalee ci berki démb benn conférence boo xam ne sëti si ñaa fi si ñoo ko doon organisé ñu ko defee ko fii nii moo nekkoon li lancement màggal gi. noon lañ ko bakk yëpp ñëwoon nañ ci ñu teewe ko sëriñ Ahmadou mbakke Daaru Muxti ba doon def waxtaan wi nga xam ne ko defoon ci xool euh, diggante murit yu démb yi ak murit tay ndax. ak soppeeku am na bu soppeeku amee ndax lan lañ war a jéem a saafarawaat ba melaan murit démb ya mu nekkoon thème bu am solo bu am thème bu actualité la waaye tamit waa kër Cheikh Mamadou Fadel nga xam ne ko ne bis bi a moo jur Cheikh Mamadou Fadel noonu lañ ko kon ne ba tey ji bis màggal gi muy ñaar fukk ak juróom benn bis bi la xam ne bis bu teet la boo xam ne dañ ci dakkaale leeltul xadara muy guddi ñaar fukk ak juróom ñaar ñu yend ko tey ji jàng alxuraan jàng xasiira salaatu ala bi mbokk yi ñëw ñu leen di saafante ak ñoom jokk mbokk gi waaye tamit def ay sikurullah ñaanal réew mi jàmm ñaanal euh, dëkk bi jàmm te it fàttali ko góor yàlla googu daal moom mën nañoo wax ne programme bi organisation bi moom euh, ba fi ñu toll nii moom macha allah li muy ni muy ni muy doxee amul lenn lu ci sooxe lépp mi ngi jaar yoon.